jërë ngeen jëf bokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak seen groupe Istikhama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlee fii ci Poroxaan kon ba tey dañuy wéy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii wan nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi. nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee làddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance générale kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu làddanti bi. li xam ne moom la ñuy dénk ci gii wàll moom moo doon làddanti bi te loolu ci làmmiñu sëriñ bi la woon làddanti gi nag dafa dafa làmboo anam yu bari. ndax lekk gi ci la moo ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd tëdd bi ci la tëdd bi nag ne wér-gu-yaram gi ci la hmm, li jëm ci cetug daara gi itam waxuma sax cetug biir néeg yi waaye cetug daara gi ci boppam rek loolu itam ana ci la ci lañ ci ci lañ ci lañ ko greffé maanaam masalan léeg léegi li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax euh, euh, waxit nag depuis booba ba léegi li nga xam ne moom lañ ci moom lañ ciy dépensé hmm, at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bi day dellu ca hmm, euh, ca sëriñ ba hmm, boo xam ne liñ ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wu daara ji day day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maam ni ni ko tur tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo euh, waaye dinañ ci greffaat nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom dee su ko lekk waaye nag dana ci doxal bi ci doxal bi la bokk ak yeneen euh, bu fekkee ne itam am nañ ci sante loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom euh, fokk mu jël matukaay pour euh, mottali ko mooy ay ordonnance ak ak ak ki nangam ak ki nangam bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu noo noo noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na quatre-vingt-cinq millions cent vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme comme comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na mu te <laughs> kay dafa wax ni eh, ci perspective eh, dafa bëgg naa yegg barab sangam kon lii mën naa doon suñ dalikaay ñun da dalee foofu ci biir quatre cinq millions yooyu eh, li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk lekk gi nag mooy Euh, lépp rek boo ku ko xool sax ci lii di ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba suukar mburu euh, ceeb diwu yàpp ñebbe tamaate ak ak ndugg divers yooyu yëpp maanaam lool loolu laa loolu laa def ci ni mooy cinquante quatre millions onze mille sept cent quatre-vingt-treize mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw li nga xam ne mooy ci carburant wàllu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak euh, nettoyage mm, euh, ak oto yi nga xam ne ñoo fi nekk oto direction bi am na oto euh, intendant bi am na oto boo xam ne moom mooy dox service yi maanaam ci carburant rek ren jii maanaam dépense nañ ci deux millions cent hmm, quatre vingt dix cent soixante dix huit cent quatre vingt cinq deux millions. Euh, ndugg mooy divers mooy nag nga jënd keccax jëndu géej gi jënd tam euh, patamate ndax moom kii nañ ko ba pare euh, carotte supame navet laaj nangam poobar jimbo yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dañ ci dépensé bii weesu nii sept million cent cent quinze mille sept cent soixante bi weesu nii rek at mi weesu hmm. li nga xam ne moo aju nag ci wàllu euh, ceeb bi ak euh, dugub ji dugub ji euh, ak mboq mi ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale mboq ngir loolu daal xam naa suñ mbokk séeréer yi bëgg nañ ko loolu dafa saf dugub ji ak ceeb bi yëpp. buñ ko xaymaa maanaam euh, mi ngi toll ci dix million trois cent trente et un mille cinq cent soixante euh, mu des nag li nga xam ne mooy ordonance yi loolu nag boo déggee mën nañu ci ci ndax ceeb bi euh, trente deux tonnes nañ koy lekk lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax trente deux tonnes neuf cent quatre vingt lekk ci dugub neuf tonnes neuf cent trente six ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël quatre vingt dix kilos. nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub wala mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne dañu jël deux tiers yi def ko dugub bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li li ñu soxla dëgg-dëgg ci ci cere ceeb bi nag moom moom noonu la bi nga xam ni moom lañ koy moom moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nag ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ bos mat na 400 nangam. waaw kon bokkuñu waaw waaye bu ñu amélioré la ndax standard bi moo doon sëriñ bi bugguloon a def loolu te méngoowul ak li nga xam ne moom mooy mooy standard international ci nutrition waaw moo te loolu la jëlit base pour def ko lii ca loola lañu lañ lañ ñun bi ñuy tàmbali dañ doo dañ ko tàmbaloon di di jënd par genn wàllu liibaru poobar jënd ñaar dërëmu keccax di ko def noonu ba xam ni soo ko globalisé par par ni sëñ bi wax boo globalisé nag par euh, euh, euh, semaine nangam lay doon so kon mm, kii di dem di dem ci noonu ba ñeme ci di di ko def nag par ñaari semaine fi la ñuy yemagul nag ndax dafa bëri produit périssable yoo xam ni soo ko jëlee pour échéance bu gudd te amuloo froid walla fenn foo xam ne conservation la eh bien ma on y perd loolu war itam nag ñu xam ne 15 moom doy na ndax du du du ko weesu rek day day day day indi ay ay ay pourriture moo moo waral ñu ko ñu di ko defal nga xam ni loolu mooy ci li nga xam ne mooy wàllu budget alimentation donc nga xam ne gis nañ def nañ ci ay rubrique rubrique yi mooy li ñuy lekk dëgg-dëgg ak carburant bi nga xam ne moom la ci consommé ak yeneen yu sew sewaan yi nga xam ne moom la jënd mu te ñu wala fi di ko woowee am ndugg mu des nag léegi salaire salaire yi ñaari partie la mooy yi nga xam ni eh, dafa aju ci ñun ci ñun mooy eh, man bu ma jógee kon war naa mën a dem ci internat ba xool ña fa nekk nangam nangam nangam jóge fa dem ci waañ wa xool ña fa nekk nangam nangam xool ci balekat ya nangam nangam nangam xool fóotkat ya nangam nangam nangam donc eh, yooyu man a onze millions trois cent cinquante deux mille cinq cent la waaye nag loolu léttkat bokku ci yaayi daara bokku ci toggukat bi bokku ci déedéet waaw kon donc te ñooñu des na nga xam ne kon lii nii mën naa wax ne benn partie la ci li nga xam ne moom la fondation bi di jox salaire fii ci ci ci ci ci personnel bi waaw personnel boobu personnel boobu fluctuant la moo tax euh, mënuñ ko systématiser waaw je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax euh, ki mën a lett tey ëllëg du mën a lett waaw kii kii kii kii kii kii fóot si tey déwén mën na ainsi waaye fexe nañ ba ñee nga xam ne mooy ñu nekk ca waañ wa toggkat yi fa nekk eh, juróom-ñeent lañu yoo xam ne yii yu yu yu ñu tànnal yu sëñ bi tànnaloon boppam la léegi nag ñun ñu fexe ba kenn ku nekk am keneen koo xam ne kii moom su su fekkee ne néew nga doole mu taxaw wala mu jàppale la ca wala soo fi nekkul moom mu ñëw taxaw ndax liggéey bu du taxaw waaw loolu tax ñun noonu noonu noonu noonu lañ ko doxalee euh, boo demee ci euh, néeg ya néeg bu ci nekk sàkkal nañ ko euh, ñaari fóotkat te néeg yi fukki néeg la ak ñeent fukki néeg ak ñeent yoo xam ne seen lim gën ngaa néew fokk dana mat fanweeri nit léttkat yi waxtu woo xamee ni létt jot na maanaam de de bopp bu nekk trois cent la bopp bu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy létt fii loolu la ñuy fayeeku maanaam bopp bu ne juróom benn fukki dërëm waaw yenn saa yi tax moo doon koo xam ne kii ah fréquence euh, yu bu bu létt bi maanaam ñaari yoon parweer ñaari yoon par weer ngir dañ ciy séddaale aussi maanaam jàng gi muy jàng noppalu gi muy noppalu et de choses ndaxte waxtu bisu létt daanaka du bisu noppalu pour xale bi waaw kenn ku ne yaa ngi ci bopp maanaam raxas nangam defar ko kii pour mu bañ a crasse waaw yooyu itam ay produits yu bari yoo xam na leen ko yooyu moom mbir wàllu jigéen la donc yi ñu ciy war a yi war a soxlawoo yëpp pour pour pour raxas bopp bi ba mu set maanaa to toppatoo xale bi ba ba ba mu aw yoon yooyu yëpp maanaa produits ya yooyu moom daara ji da koy jënd teg waaw nga xam ni eh, saaboog ordre de sawel ak waaw yi ci topp yëpp nga xam ni eh, wii nii bii nii weer weer wii ñu dugg nii rek nga xam ne ñaar fukki fan dong lañ nar a am ci weer wi nii maanaam jënd nañ ci juróom-ñetti carton yoo xam ne yu yu euh, euh, coton la ak euh, ak te loolu jëmul ci lu dul fomp dëkkuwaayu xale yi raxas ko fomp ko maanaam seen dëkkuwaay ak seeni seeni wanag kese defut leneen saabu yi nii lañ koy joxee maanaam gone gu nekk danañ ko jox euh, bu dee bu dee bu dee saabu yii nga xam ne saabu cent euh, deux cent grammes la wala cent cinquante gramme dañ ko jox ñaari saabu ci ci ci weer wi su fekkee ni euh, saabu quatre cent gramme yu mag yi la maanaam dañ ko koy jox pour diirub ñaar fukki fan ndax loolu dañ koo xool nag lu luñ lu ñu def ay yoon yoon yoon la xool ko xool ko waaw ba xam ne nag lii moom mën naa nekk moom waaw ñu door ko ñu door ko commencé def na ndax li ëpp ci si ñëw ci saabu nag moom saabu yooyu la boo xoolee gis nga kat ñuy yónnee seen addi yëpp ñi ci gën a saabu bu gën a tuut mooy saabu yeneen mooy mooy yi yi gis fi rek te yooyu moom saabu 400 grammes la boobu nag dañuy def euh, euh, ñaar fukki fan yu ne xale bu ne am ci benn boo xam ne bii loolu moom cangaayul boppam képp la ndax moom fóotul waaw raxasut waaw moom cangaayul boppam la ba ba at mi jeex maanaam boo ko dee xool daanaka dinañuy def euh, ñaari fukki fan yu ne lu war a mat ay trois cent soixante dix huit savon nangam nangami carton pour pour pour loolu ak it fóot fóot bi nag moom euh, euh, dañoo def néeg bu ne ñetti saabu yu yu quatre cent quatre cent grammes moo koy moo xam nga ne loolu moom <laughs> de de de doon na des sax ndax it nag. waaw pour leen gën ko gën ko xam bu baax ndax daf ci am yoo xam ne da daan des sax. bañ indi garder ko ma daan ko teg nag loolu fir firnde ndax bis dana ñëw nga boo boo bëggee wax ne danay daan na des bay def nangam da ngay joxoñ ñoo xam ne lii ngay wax waaye donc kees génne dañ daan def saabu yi bu desaan des boobu ñu jorte ne ñii fóot dañ ciy jublu njubla ngir eh, man koo desal wa te te du set dañ dañ ko daan jël ba ñun ñëpp ñu dellu ca na nga xam ne noonu moo gën mooy di def muy set rek xam ne loolu moom moom amatul waaye néeg bu ne maanaam dana jël ñetti saabu te danañ fóot altine fóot alxames waaw altine bu ne danañ fóot alxames bu nekk danañ fóot maanaam noonu it lañ ko lañ ba ba ba at mi jeex waaw altine bu nekk ak alxames bu nekk waaw seet nag nga xam ne kon ñetti saabu fukki néeg ak nangam nga xam ne ak loolu maanaam te te te ñaari yoon par euh, qu'est-ce que je dis ñeenti yoon par semaine waaw ah. ah, <laughs> quatre fois par semaine maanaam noonu noonu nga xam ni noo noonu lañ taxawoon nag wàllu lii nga xam ne mooy moo ci wàllu wàllu cet gi ci ci ci ak leeral tuuti rek nga xam ne moom loolu bokk na ci ni nga xam ne noonu noonu lañ koy liggéeyee loolu yëpp nag euh, lii nii dañ koy yónnee mooy mooy lii waaw ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ni noonu lañ ko employé nii def def ko nii ba mu méngoo su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag. ba ba ba bëriwul lu muy bëri bëri bëriwul lu muy bëriwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da dem a dem a dem ba mu wóor la ni eh, eh, faw nga leb nangam wala da am am am ku kuy gérer ko nekk am na nooy am na nooy def waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatu ci li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay ay côté yuy ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi. tey naan gi euh, col gi ak ak ak ak nekk gi ci barab bi dara faccatu ni mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax terewul nag am na des mécènes ñoo xam ne ñi ñoom itam dañuy jàppale euh, sëriñ bi ci euh, liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di di di indi masalan lu ñu lu ñu lu ñu mën ci lekk ci ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na am na koo xam ne moom euh, ca ca ubbite ga indi woon na euh, tenue yoo xam ne moom moom moom la bëggoon maanaam maam jaara yiy sol mm. euh, xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenue yooyee nag ñi ko indi woon li ñu jublu woon mooy ñu nuroole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ko xam ko ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku ku xam dara dara dara ci ci yar da nga xam ni xale de su ko yar ci mu mu mu maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko daf ko ëppalee lii wala soo gënee lii ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñu li ñuy lijjanti mooy li ñuy sol ñu bëggoon ah, bëggoon ko harmoniser taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue euh, buy bi bu bii bu tilimee alxames nga nga sol ko ba bu altine nga summi ko euh, jël jël bane noonu nag lañ lañ waatee nga xam ni euh, li nga xam ne moom lañ moom lañ tàmbali ren mooy te bugg ko wéel moo di far ngir loolu mën a wéy ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamul xamagul dara dëgg-dëgg fokk ñu dimbali leen euh, ñooñu nag dañ dañ bari na ñoo xam ne dañ daan wàcc seen seen seen seen yére. waaw nga xam ne ñu di ko for ak xeet yooyu pour pour loolu bañ a tey bañ am nag dañoo bëgg nag léegi kon euh, fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su nappee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am walla saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ko jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu. waaw nga xam ni du du deesu leen deesu mënoo ñëw yow ci biir ba ba boo leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaa wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne jii lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu set ki nga xam ne moo fa doon euh, poste poste santé bi ki fi nekkoon woo ko wan ko ne ko damaa indi fii daara joo xam ne nangam ki nanga ki nangam it xamal ko won ko ni ko maanaam loola moom saso saso na ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def kooku nag moom ma kooku Cheikh Fall dul sama borom nag moo dogal moom mu mu retraité daaw waaye moom ak njobootam wax mu moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofu la doon liggéey te dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set nga xam ne noonu noonu lañ lañ ko jàppoon faj mi it garab yi li nga xam ne moom moom moom moom moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xaw ma ko waaye garab yooya ci ci lañ ci lañ doon faj jaa di ko faj ba yooya yoo yooya périmé at mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen i doléance day mel ni dañ ci boolewaale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a war a war a am ñoom da danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmier bi daana fexe ba ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax du ma lu gënuma leen ko xam waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar feebar boo xam ne euh, li ngay lii wóor mooy mu mu beru ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu loolu rek ko taxoon a jóg nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ñii dañoo kii ba mu mu wóor ne nekk gi mu nekk ak ñii xëy na du du du caa génn sax da di wàll waaye dara man a ñu ñu ñu ñu ñu isolé leen maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem euh, koo boo xamee ne ca ca néeg bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw. yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellawaat ca ca néeg ba su fekkee ne téréwu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam nangam dal di delluwaat ci am am njàngam. Euh, loolu yi ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo beeg lépp jur na ay résultats yu am solo jëm ci wàllu daara ji. Euh, résultats yi am na bu wér. te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi euh, depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sare ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñu ñeenti at soo a am ko mokkal bi ñu accès ba 2009 muy suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak ak ak 2000 euh, juillet 2013 bi 14 bi ñu ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ñeent ñu mokkal alxuraan mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ euh, Mamor euh, sëñ Muntaxam sëñ Mamor moo jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Muntaxa Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale yi duñu leen xam ñu itam duñu leen xam ñu téye leen ba minal baqara naa si suñ nekk noppee ñu saxal na ñi ñu mokkal lañ ak seen nattukaay yi ñuy nattee ku mokkal kon kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg-dëgg mokkal la. daara jooju nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale. Euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mouhamadul Mountakha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu. nuñ leen di seete euh, commission bi it ni mu leen di seete mooy euh, dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu ren ji nag euh, li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si nag mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen ñaar fukki maam jaara ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleek ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari euh, su ko defee kenn ku nekk euh, euh, sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ne ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi Euh, tare bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekki démb ak àllarba ji tey euh, bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tare lu ëpp ñeent fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeent fukki isib te ji ci àllarba ji nag euh, ñu doog a ñu doog àggale. Euh, su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ ko séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppe yàq baatit te mënoo ko defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimaatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa laa laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point yàq it maska lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee un quart point. kon gag di point yàq baat di genn walla point yàq masque di kaaru point runge yit ndegam dongo bi dañ koo delloo del tu mënta fexe ba génne boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamil bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii eh, mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat euh, ba déwén mm, ak jàmm. te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin nañu ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñi leen di fuglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doom ñooy ñooñu kon loolu résultat la si sëriñ bi wax ne dañuy dañuy jàng bind tam ay kaamil euh, ñetti at yi du 2012 13 14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil. ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na ci daara ji moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeent fukki kaamil ak juróom yoo nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna jaara ñoo ko bind euh, dinañ la ci wan sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bind ko na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la euh, la ci des tam mooy am nañ ñu mokkal ñooñu ñu ñoo ñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab te xëy na suñu nattukaay suñu njàngin moo wér wér gu nga xam ne nii dina ne sax nit ki mokkul te fekk mokkal na kon ñi ci wàcc nga xam ne alxuraan minal baqara ilan naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñoo itam takku nañ fi lool la ca des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alxuraan lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa say at jeexee ci daara ji nga dem ñun de dañ koo xeeboon sax waaye kenn ku ca nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw ci loolee ku su ñëw nga yóbbu noonu te fekk xëy na sa xel moon toll woon waaye daa ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola kon loolu tam résultat la koo xam ne fa nga jóge ba nga fa jógee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bokkut te ñi fi nekkoon yemut ak ñoom ci njàngin ci lépp ci yar ci comportement ci lépp loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sañ bi gënoon ko bëgg ndax jàng alxuraan ah du ne ñëpp rek war nañ koo def sax ñëpp war nañ ko def waaye mokkal gi laa bëgg a wax du ne ñëpp war nañoo mokkal alxuraan jàng gi mun munta ñàkk mooy mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la kenn war na koo jàng ba xam sa diine xam nooy jaamoo sa borom donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalu ci tam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel ñoo xam ne ñam fi bàyyoon meluñu noonu kon loolu tamit du suñ seedewuñ ko ñeneen ñoo ko seede suñu kanam. li des mooy euh, concours yi nga xam ne mooy am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro bi nga xam ne inspection départementale bi ñooro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk ndax ci seen département lañ nekk. te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na si ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mi toog ginnaaw ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cër ah nga xam ne lu ñu fi doxal lu nekk rek ñoom ah ci seen ndigal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région ju Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy mooy gañ mooy jiitu ba bi ci mujj daaw ñaar ñi daara ji dépa kii woon euh, présenté woon kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa jógee dañuy dem au niveau euh, régional Kaolack bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey kon loolu tam résultat yoo xam ne ñu séddalañ ko suñu bopp nañ itam nag ba au niveau national am na ci boo xam ne daaw jéeg région bu nekk dangaa joxe kenn région yëpp ku ne indi woon nga kenn région Kaolack indi am maam jaar mu jóge Poroxaan maam jaar moo jël première kon ba tey loolu tam beneen séddale boo xam ne ci njariñ la. nga xam ne euh, beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam ne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn. ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji nag kii raw ci daara ji kon na dem ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième ka ko jiitu benn genn wàllu point la ko rawee kooku euh, Soxna Jaara moo jël deuxième. te ñooñu dañoo waroon jógee fi dem euh, Arabie Saoudite pour defal leen fa ay ay formation ñu jiitu. yàlla dogal demut ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa loolu moo ko teelee dem booba waaye moom moo jël deuxième ki jël première genn wàllu point la ko rawee loolu tam am nañ ko ci résultat fii euh, ba am nañ ci koo xam ne sax moom itam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñoom fa dajal ay mag lañ moo ci gën a nekk xale te demoon na ba demi final waaw dem na ba demi final kon loolu lépp ay résultats yoo xam ne yu mën a yu mën a tudd la t daara ji dañ ko considéré waaye séddale ko boppam. nga xamante ne nii nag gis nañ ko. jëm ci ay résultats yu am solo yoo xamante ne nii daara ji am na ko ngir loo xamante ne nii 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génne ay ay téeméeri téeméeri maam jaara yoo xamante ne nii mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi ci sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man faa ne loolu kon defe naa am na solo lool waaye nag daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm kon nag dañuy àndaat ak directeur. muy mu diir sëriñ aboo Jaxate mu ëndil ñu nag fi nga xamante ni nii foofa la daara ji jëm ci wàllu perspective. Eh, ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba sëriñ Maxtaar mi fi nekkoon ak sëriñ seex mi fi nekkoon ak ñi ñu fi jiitu woon ah, li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku waaye ñu bañ a yem foofu itam. waaye ñu jéem ca saf dolli ca loolu kon daf ñu daal yóbbu ci euh, subay daara ji mooy li ëllëg lu ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay semb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a dana gën a tegu aw yoon moo tax bi ma ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox nun noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy maam jaare yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek euh, ngir yàlla maam jaaree ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp maam jaaree leen fi indi lu leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seenu seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ah, ñu daal di xam ne kon mm, kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam xam-xam gën a yokk rek ah, ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut ñu daal xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loole nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal moo tax ñu daal di xalaat ay semb sémb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sémb ya ah, barab bi ñu xamle diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bii école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba ba nga yam BFEM xëy ginnaaw boo wattoo alxuraan kon jàng boobu ab ab la mu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén ko bëgge ah, centre de formation bi itam benn ruq rek lañu am boo xam ne ci lañ koy defe ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarale xarale yëpp di ko def ñaar it lañ amagoon ci ñu ñuy ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay sunu yéene mooy ñoom centre de formation moom bu bu beddiku ni daara ji beddi ko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jaral buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina bu jëriñ jigéen ñu def ko ca ah recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it ah, formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe lañu ñu kon centre de formation boobu ci semb yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci wu yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañ dañu sàmm sàmmloo nañu seen wér yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne bii euh, la muy faj mat na juróom benn junneeg juróom benn téeméer yu topp da ci xaw a néew doole boo tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daañu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk si lu fii ñu dugal ko ci roq ba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne ah lu ñu amal la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee ak yow ah bu noppee bu la bëggee faj am fu mu mën a wéeteeg yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënut a ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sémbu la bokk. yoo xam ne bu bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara du doo seen dara lépp day lëndëm këriis da tax na sunu mébét la itam bokk ci ñuy sëb bu mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër day wër miirub daara ji lépp ba mu yàgg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee ah fu dara dox ñu mën koo séen loolu dana yokk sécurité sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wërale ko wërale ko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn làmp ba ñaari làmp yoo xam ne moom bu tàkkee ci biir ku dara dox nga mën koo séen loolu ci sunuy sunuy semb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkin wi gën a tegu ci yoon ah, nawet bi itam li ci ëpp. ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy ñuy yooyu jamono bu ne da fekk ci nawet bi ñaare kon li ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal ah, yëngu yi bari lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroomu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange ah daara ji nag sëriñ bi ko fiy def dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam. bu bañ a jëggaani fenn dara moo tax mu fogoon lépp lu ñuy war a soxla ci cib liggéey fii rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ séddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jëggaani ah, wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wéy de dossier nga xam ne moom it duñ ko jëggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyub daara ji wutit ab machine wal boo xam ne ah moom itam walu di fayu walu di def leneen maanaam lii waa daara ji di dundee rek lay wal ah, bu noppee daal di tëj ay buntam loole kon nga xam ne kooku wàll dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sañ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam ah, dëkk bi am nay forage naam waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xëy na suñ mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mënta amit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mbànd yu mën a def euh, euh, litre yu bari ci ndox ñu ñu yëkkati ko ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox man koo am loolu it defe nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllum ndox ba duñ ko soxlaa jëggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw ah, loolu daal ah, xam naa daanaka eh, ci ci gàttal daanaka rek mooy sémb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu ñu fas yéene di lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Mountakha xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee a ah, jërul kenn di wax lu yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la luy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kem tolluwaay kattanam lu mu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo eh, ku ne xam na ne danga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca du ca du ca du ca du ca du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëñ Tuubaa la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii eh, rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man yow yaa xam fa sama man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek na ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loola nag ah, ñëpp la war ah, képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi yëpp a bokk jàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci mën ñu ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki waajuram dara war la ci amut seen lekk seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war euh, diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci lépp fi koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne a ah, état bi war na cee bàyyi xel ñeneen war cee bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moo moo moom moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy ab ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor waaw message bi may bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg dëgg dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel ne noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko suñu Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek. moom day dem rek du xaar kenn te te daanaka sax it du soññ kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man-man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëñ waxee sànq wax ju am solo la danga ko ci fekk ne defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñi ñi jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néew la kaa defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ciy def loolu nag ñan la koy defal moo ma ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa Sëñ Basiru du ay murit dong daanaka du sa ay Sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñoo ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay former ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ mboolem ñi fi gën a dem te moo ko luñu sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañuy indi ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëkk donte ñu ngi ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góor te loolu ñun ñoo koy seede ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpale wu ko kon nag fii alxuraan doo nga fi nekk ju set ju àndut ak dara da ci topp soog topp kon nag képp ku di murit itam di taalibe wala nga di jullit sax laa war a wax jullit ab jullit boo mën a foo mën a nekk tey jullit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci Euh, responsabilité war nga ci am ab taxawaay euh, rawatina nag waa Kër ba Basiru ñi nga xam ne ñoo di ay seeni taalibe fu ñu mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew war na ñoo xam ne tam sëriñ bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéeyu yàlla ku ci def ku ci def itam mu defal la ci ku joxet mu defal la ci liggéey boobu